mbokk internet yi safoo di seetaan site bi di wasaare société ginnaaw ba ñu leen nuyoo ziar leen bu baax a baax am mbégte ak kontante saa bu ñuy jàkkaarloo ak yéen tey ji nag ni ngeen koy gisee ñu ngi fii Kër saar ànd ci ki nga xamante ni moo di Diop Faramareen ci social bi nga xamante ni mu def si li nga xam ne di tabaski bi mu fas yéene joxe ay xar loolu moo tax nag ñu ñëw file si Kër Massar ngir ànd moom ci jëf ju baax jooju nga xamante ni moom Diop Faramareen mu ngi koy jëf ci ñi nga xamante ni yàlla warsagalewu leen warsag bu bëri waaye gis ngeen tabaski ku ne tabaski da ngay wax ne xar am na ñoo xamante ni sax seen loxo jotul seen ginnaaw am na ñoo xam ne amuñu lu ñu jëndee xar ñi si des ñëpp dañuy peese waaye gis ngeen defkatu ñu baax ñi comme Diop Faramareen Wally Ballago Seck ñoom ñëpp ñu ngi fi di def li nga xamante ni moo di jëf ju baax ci social joxe ay xaru tabaski loolu moo tax ñu ñëw fas yéene ànd ak moom ci jëf ju baax jooju nga xamante ni moom mu ngi koy def damay fas yéene rek dugg si biir daral bi mu joxe ay xaram bu ko defee ñoom tamit ñu jël ko mu wax ñu idée bi naka fa la jóge xale bu baax baaxee rek nga topp ma ma dugg ci daral bi gisee ak Diop daal di tàllal ko micro mu wax ñu si mbir yi naka la ko dikkalee joxe xar mi nga xam ne moom mu ngi koy def acca ah, mbokk internet yi comme ni ma leen ko waxee bi may eh, door sama li nga xamante ni moo di commencement wu émission eh, tey ñu seet ki nga xamante ni moo di Diop Faramareen muy joxe li nga xamante moo di social ci li nga xamante ni moo di xar yi nañu fi nag ci social bi xam ne mu ngi ko doon def waaye tey muy joxe li nga xamante ni moo di xar nee leen ay fan yu néew des si li nga xamante ni moo di tabaski bi eh, Diop gannaaw ba ñu la félicité si jëf ju rafet bi nga xamante yaa ngi koy def mu nekk jëf joo xam ne du bu noobul la aussi ñu bàyyi la rek nga nuyoo sànni si ay quelque kàddu waaw dañuy sant yàlla d'abord di julli ci yonent bi di sant su ñaari waajur di wax jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jaraw la ke maam Cheikh Ibrahima Fall. ñi ngi nuyu ñëpp di leen nuyu yéen ñi xam ne yéen a taadaan ci mbir yi di nuyu waa site bi xam nga di leen ñaana yàlla tele bi xam nga dem ba doon ay télé télé télé télé ci barke Seydina Mohamed. di rafetlu liggéey bi ndax gis nañ ne li ngeen di daj ci askan wi ak li ngeen di daj ci social bu ñu naan social yéen a tax ndax social. jóg di sonn pour doomu aadama di jóg di def lépp pour doomu aadama nit xam ay soxlaam fajal ko ko kon yéen yéenay bopp bi ñu ngi leen di sant di leen gërëm ci yëkkatiku bi ngeen di yëkkatiku chaque jour di sonn ci doomu aadama yi saa bu ñu soxlaa gis leen ngeen taxaw sax du dërëm bu ñu leen di jox du ñaar dërëm lu ñu leen di wax du loo leen di fayiku nit kon sant nañ leen ci teewaay bi ak taxawaay bi di leen nuyu bu baax a baax di leen ñaanal yàlla liggéey bi yàlla na ko yàlla muccal waaw. Hmm. Hmm. social fële comme moom ni ma koy waxee rek mooy. dama koy wax chaque jour jullit bu nekk. war nga mën a jàppale sa moromum jullit. àdduna nag ñett yi moo ci am. am ak ñàkk ak faatu. sa nit ku nekk war nga koy bàyyi xel ku amul bëgg nga ku dimbali. waaye yow mi xam ne amoo woon bëgg ku la dimbali bis boo amee war ngaa mën a fàttaliku ñi ñàkk ndax jaar nga ci ñàkk lii ñuy def dañ ciy juddu dañoo fekk suñu waajuru góor daan jël ay xarak ay fos ak ay lu ne di ko may nit di ko defal ay doomu aadama social dañ cee juddu moo tax nag biñ ñëwee di ndawit fii di suñu gox di suñu baas muy Kër ma saar ñu juddoo fi presque ñu màggee fi ni ma ko mën a waxee liggéey fi ba tey yàlla dimbali ñu lu ñu am ñu am ko fi kon yoon la ñun ba tollee ci ndaw bëggoon nañ ko ñu dimbali xam nañ li si ñàkk mu metti woon lool kon ñuy julli di ñaan yàlla yàlla ñu yàlla may luñ terale suñuy waajur ak mboolem jullit bu ci war wërsëgam ne kon bu ñu yàlla dénkee ba ñu dénk ñu teraanga ñu dem ba faj suñuy soxla gis julliti yàlla yu nekk ci jafe-jafe bu ñu leen dimbaliwut war nañ yàlla ci kàddu gi ñu ko ñaanoon moo tax nag ñu am gëm-gëm bu toll ni lépp lu ñu yor sa am ko sa moom ko dinañ ko jël dimbalee ko julliti yàlla yi grâce à lan xaj na benn côté ñu ci bari gis nañ ma ni ma mel ak bëgg gi ma ko bëgg mu bëgg ma ko ñu seex ko muy suma nit di nit ku baax di suñu xarit xam ñu bari soxla ci moom mu ñu egg ci moom comme ni ma koy waxee Wally yaakaar naa li tegu ci ginnaawam bari na ci wàllu social nit ñaa ko yaakaar fu nekk la nit di jógee boo demee démb këram fii kawlax ñii mbuur ñii Touba ñii Ndar ñii def nañ fa quatre jours ñii def fa cinq jours sa ñëpp mi ngi def tout pour lan satisfaire leen si seen i besoin kon tey ñun bu ñu dee nitam di xaritam ay nit yaakaar ci moom jaar ko ci ñun ñëw ci ñun ne ah buñ sañoon de tonton Waly jëndal ñu xar ñun jàpp nañ ne nitam lañ sañ mën ko warta mën a àgg ci moom ndax ñun nag nit njariñ li ko Waly waxee nit njariñ moom bu dee suñu xarit sa amaluñ ko njariñ moom mu amal ñu njariñ sa amaluñ ko njariñ kon xarit gi du dëgg ci ñun suñu xarit la képp koo xam ne yaakaar na ci moom bu excès yi man sama mën koo faj du àgg ci moom moo tax ñuy génn xar yi ñuy génn social di ko def di ko dimbalee nit ñi xam ne dañoo am yaakaar ci moom sa mënuñu àgg ci moom ñu dimbalee leen ko sa yàlla tax grâce à moom turam comprendre ñun nag moo tax Saliou muy jóge Jurbel dafa woote ne ah, bu ma bëggoon kat tonto Diop bëgg naa nga dimbali ma ma am xar nga wax ko tonto pour ma am xar ma reetaan quoi ne ko ah mu ne ma waaw ndax damaa bëgg xar pour sama yaay ndax amuñu doole te dañoo war a am xar tabaski moo tax ma ne naa la ko wax ma ne ko non li nga wax dëgg la waali mi ngi dimbali ku ne mi ngi defal ku ne yow nag boo demee ba am yaakaar na dama bëgg tontoo Jóob yow mi jege tontoo waali nga wax mu jëndal ma xar ah wax ja àgg na tontoo waali mooy man maay moom bu la defalee mel na ni maa la defal bu la defalul mel na ni bu ma la defalee moo la defal dinaa la jëndal xar ci kàttanu yàlla jox la ko ndax yaakaar bi nga amoon ci tonton Waly pour mu fajal la ko dinaa di nga am xar jënd xar jox ko sa yàlla rek tax ci yaakaar ji mu amoon si suñu woykat comme ni nga ko waxee ñun topp ñu kenn topp ñu benn woykat ànduñoo benn woykat moom rek lañ bëgg yàlla nag mooy def nit bëgg nit. loolu kenn mënu ci dara yàlla moo def mu nekk suñ biir xol ànduñu ngir àdduna ànduñu ngir succès ñu ngir tur képp kuy nit ku baax boo ko gisee di ko bëgg boo ko xamee laa xaw ma nag boo ko jegewul ba xam ko mais boo jegee waali xam ko tuuti barke yonent bi boo dee nit ku baax di ko bëgg ñun yërmande lañ am ci moom ak cofeel bëgg ko mu bëgg ñu jox ñu suñ cër jàpp ñu sa yàlla tax kon képp ku yaakaar ci moom bu egsee si ñun ñii xaritam ku ko ci mën a faj war nga koo faj war taa àgg ci waali dama koy wax chaque jour dama ne xariti waali yëpp ñi yàlla dimbali képp ku ci yàlla def nga def nii lu ci bari mën naa régler Faly mënut a régler lépp barke borom tubaab bi mu ñëwee première li mu génne presque vingt cinq millions joxe na ko ay so ay social ay nit ay xaalis laa wax xaalis jox ay nit ay xaalis xar yi li mu joxeegul ci xar xaw ma nu mu toll kon nitam yëpp buñ jëndoon ay xar wala ñu investir comme nii ñuy def si xar yi di jaay ak jënd yëkkati ci li ñuy investir yëkkati ci dimbali ci jaamu yàlla yi xam ne soxla nañ ko dinañ ko defal yàlla dinañ ko defal waali ndax nag nit njariñ bu ñu bëggee di ànd ak waali waali di ñu jariñ ñun kese di yëkkati di ñu dimbali wala mu ñuy woy kese wala ñun ñuy taxaw di wanewu ci tele yi di maye ah sa julliti yàlla yi soxla ko nekk ci dëkk bi sonn lool man li may sollicité ci ordonnance ñu feebar li may sollicité ñoo xam ne tey jii dañoo nekk ci ay xat àdduna ñu leen di génne ci luyaas li siiw li nëbb moo ëpp ñun lii suñu bëgg-bëgg la suñu maanaam dimbali julliti yàlla yi ci li ñu yàlla may defaguñ dara barke seexul xaddim fii nga ñëw bis dina masat jot nga toog fi camion ceeb yi taxaw xar yi taxaw diwlin yi taxaw ñun lii suñ deret la me dañ koo bëgg defuñu ko ngir dara li ñuy def ci suuf moo ëpp fuuf xaj na nag da loo xam ne tey jii comme ni ma koy waxee dige boo ko xasee def ci nit ba ñëpp dégg ko faw nga woone preuve ne def naa ko duñ wax lu ñu mënut yoruñu alalu kenn jëluñu alal kenn di maye li ñuy def grâce à moo tax ñu koy def ak yàlla rek tax ñu di jullit gis mbokki jullit nekk ci coono jamono fi mu toll ñu leen di dimbali sa yàlla rek tax mais nit moom nit ku nekk war ngaa mën a dimbali sa moroomu jullit dafa am solo. waaw xar yi moom yàgg naa ko joxe. yàgg naa di joxe xar sa nee nañ nit buñ nee baax na na ko mbokk ya lii may def nii defu ma ko jiitewu ma ko ci samay ji defu ko ci jàmbur nii de man ci famille bi ma juddoo li may joxe ci xar mat na quinze lii ngeen gis cinq six yi may jox ay nit ngeen gis mais samay famille laa ko njëkke ñi bokk ak suma baay ku ci nekk dama lay yóbbul sa xarum tabaski ñi bokk ak suma ndey noonu dëkkandoo yi ma dëkkal ñu bëgg ku leen dimbali ñu bëgg waali may leen xar dama ne leen xam xam nga nit ñu xam la ak nit dafa metti dañoo am yaakaar waali ñi bëgg ñëpp mu dimbali leen dafa bari am na ñoo xam ne nag li may wax suuf suur comme yow yaa jege waali bu nit ñëwee yaakaar ci waali benn junni sa nga mën a faj junni ba jarul muy àgg ci waali fajal ko ko waali li muy def ci àdduna dañoo war a ñaanal ko gudd fan waali day defar société. man de bon exemple la ci man doon ndaw di liggéey fonk sa ñaari waajur di jaamu yàlla képp koo gis mu am jafe-jafe nga fajal ko kuy nit ku baax war nga koo bëgg kuy nit ku baax war nga koo jàppale kuy nit ku baax war nga koo ñaanal gudd fan ak wér ñun loolu lañ koy ñaanal moom dafa mën ci ñun luñ mënul ci moom lim mën ci ñun mooy tey bu woyee mu neex ñu déglu ko bu ñu meree bay toj ñu toogee mu bégal ñu kon ñun war nañoo mon ci moom it lépp loo xam ne ñaaw téef la bu jëm si si moom ñu taxaw défendre ko lépp loo xam ne tey lu koy siggil la ci nitam ñu yaakaar ko ci moom ñu dimbali leen defal leen ko muñ ko mënee loolu rek lañ si euh, euh, mhm. euh, moom xele mhm. la. xam nga dañ ne àdduna lépp looy def nga def ko ñi ko yaayoo moo ko gën lépp looy jox nit jox ko ki ko yaayoo xale dafa jaral lebal sa xale moomin la sëriñ Saaliw mi deful sëriñ Saaliw mi deful yàlla lu tax yàlla na booy bëtam samay xale wu ndaw xamagut sax avenir u àdduna yàlla teg ko nattu bi yoon la ñu leen di bégal yoon la ñu leen di delloosi yoon la ñu leen di neexal ndax yàlla bu jëlee nit teg ko nattu faaw nga koy delloosi nattu bii nag da cee feer sa ñun it boo gisee ñu feer ci xale yi dañoo doonoon ni xale bëgg kuñ jàppale mu metti lool tar dañ doon tëdd ci biirum néeg sax jooy kon bu ñu yàlla dimbalee xam nañ li ci coono moo tax ñuy jël coono yi di xale yi ndaw yi di leen ko jaarale ci ñoom sax xale yi nag dañ di xale yoo xam ne it boo dégloo saaliw mi dara ñoru ko lu dimbali waajuram sama dama am cofeel suma waajur boo gisee ma fonk waali bëgg gi mu bëgg waajuram yi la boo gisee ma fonk waali social gi muy def man du ma waxal nit yàlla yàllaa ngi nii sa gisuma ko ci yow barke seexul xaddim bu doon waali lii defu ko ci jaamu yàlla yi dama koy bëgg di ko déglu dama koy déglu li gën a bon mooy nit nga toog di wax li ngay wax ka toog xam ne li ngay wax dara du ci dëgg gor su ne war nga ko jomb man du waxal waali lu ma gisul du ma defal waali it loo xam ne teguma sama bët du ma waxit lu ma munut duma ma defit lu ma munut moo tax tey jii ñuy lebal xale yu ndaw yi sëñ Saaliw mi mérito na defal lu ne ku dem Jurbel ba fekk leen fi ñu dëkk nit nag bu demee bay waajuram jël ko boole la ko lépp na la jébbal naa la ko yaakaar na tey jii lépp loo koy defalit dalaa war sa xale lañ xar mii ñu ko jox jaayuñu ko defuñu ko dara dañ koy tabaskee ji lekk ko yiw yi buñ ñaanee yiw yi ñun julliti yàlla yëpp dañuy fekk si sa yàlla nañu ko yàlla boole ñun ñëpp voilà looloo tax ñu jël xar yi di ko choisir di ko jox ñoom ñi xam ne mérito nañ ko sa war nañ leen ko jox d'accord Diop kenn mënul wax ci social ginnaaw bu ñu ci jógee ku ne xam na sa digganteem sa diggante ak ki nga xamante ni moo di Wally Ballago Seck wax nga ko si vidéo bi lu bëree bëri euh, ku ne xam na jege bi nga xamante ni euh, nañu fan yi coow li bëri na lool ci côté li nga xamante ni moo di dàll yi euh, bu ñu fi ñëwee gisee ak yaw ba ba ñibbi te laajuñu la ko xay na sénégalais yëpp dinañ poser question lan moo tax ñi laajuñu Diop ci li nga xamante ni moo di dàll yi nga xam ne Wally soloon na ko coow li bëri na lan nga ñu si a wax foofu xam nga xam nga boo gisee roose barke seexul xadim loolu dafa doon dayo bu rëy ci man dafa doon dayo bu rëy ci man rëy goo xam ne maanaam bëgguma sax di ci wax xam nga bàkkaar bi rek daf ma app man si dégg gi ma koy dégg boo tax bëgguma di ci wax ndax maanaam nga xam ne kii sa mbokkum jullit la rek nga xam ne kii góor yàlla la mi ngi denc soxna yore njaboot am nday am baay dëkk ci réew mi ëppale woo ko dara ci réew mi di dagg ay buumu gàcce yoo xam ne fajoo ko ci réew mi waale ñi koy jiiñ lu bon lépp parce que seexul xaddim li muy def ak li muy dund ak li nekk ci moom parce que seexul xaddim boo ko toppoon nekkul ci ñoom ñun xam nañ ne jullit àqan la xam nañ ne taalu bi sëriñ Touba la xam nañ ne li ñuy wax ci moom barke seexul xadim nekkul ci moom waale ak taalu bi rekk ko ñor man dayoo bi dafa ëpp ci man ba bëgguma di ci wax lu bari sax ndax maanaam damay tuub tuubal suñ borom ci dégg gi ma koy dégg damay tuubal moom waali ci jiiñ bi ñu koy jiiñ sax ma ciy wax maa ngi ko ciy tuubal yàlla di ko ci sàkku njéggal mu jéggal ma ko ndax waruma ci sax wax man loolu côté boobu du ci bëgg di wax ndax damaa xam li ci moom moom ak Baye Fall ko ñor ak taalu bee ko ñor ñi koy wax ñëpp yàq ko lañ jublu sa mënuñu ko yàq ñi koy wax ñëpp pour tuutal ko lañ ci jublu sa mënuñu ko tuutal gis nga nit looy wax ci moom da xool jëfinam waali namut ci àdduna lu muy demee di sol loolu di ko def daray àdduna jarugo sa ñun ñii bu ñu demee bay nekk ak Wally di nekk ak moom di ko waxal loo xam ne du dëgg ci ñun kon jarul ñuy nekk ak moom man da amul mbindeef muy taxaw ci àdduna naan ma fenal ma walla waxal ma di du ma ko waxal kenn ñun li ñu xam ci moom mooy taalube dëggu di doomaadama aadama di nit ku baax loolu lañ xam ci moom mais loolu moom wax dëgg yàlla dayo bi rëy na ci ñun ba duñ ci wax. xam nga nit moom li may wax sa jour loo ko xam-xam loo ko xam-xam xam xam xam mu gën laa xam boppam ñun képp kuy wax lu ñaaw ci moom rek dañuy xam ne xaj na da ngaa ñàkk a mat di wala fonkoo sa bopp wala fonkoo say waajur nit boo fonke say waajur doo saaga waajur di am nit boo fonkee sa bopp doo xas nit sa ñun xam nañ ne nit ku baax la moo tax képp ku ko wax lu ñaawit liñ la mën a wax rek mooy seet ko sa bopp bu dee waajuram nga ko wax seet ko say waajur sa nit boo fonkee say waajur doon noobul dëgg doo saaga waajur waajur ñun nag dañoo bëgg suñu waajur trop moo tax képp koo xam ne day wax lu ñaaw ñu ngi lay ñaan nga fonk xam li ci njureel xam ne sa yaay ñuy xaawi ay awraam di ci wax lu ñaaw loolu ñaaw na trop ku fonk sa ndey xam ne da ngaa judd jigéen jur la nga xam ne da ngaa màgg fi nga war a màgge doo jël waajuru jàmbur di ci teg lu ñaaw waajur ndaw la nañ ko encouragé sagub Sénégal la sagub réew mi la nañ ko ñaanal yàlla lii muy mon yàlla di ko kàttanal mu koy mon ay ati at waali li muy jël ci li naan ko centre de peuple ñu bari xamuñu li ko signifié. est que mën nga ñu expliquer lan la signifié. le centre de peuple dañ koy wax le centre du monde nangam détail gars yi di ko jàppe nii rek arrogant bu ñuy wax mais jëf la ñaata waykat a nekk Sénégal ñaata musiciens yu am tur a nekk Sénégal ñaata ay concurrence concurrence ci showbiz ñaata nit kan nga ci déggagul muy def li waali def wax ma limal ma kan nga dégg muy joxe ay xar kan nga dégg tey jii ñu koy génne luyaas mu fayal la wala mu jëndal la kër kan nga dégg mu tëdd ci lali hôpitaux yi ñu koy faj wax ma ñaata musicien gis ngeen dafa am loo xam ne nañuy nit gis nga Sénégal dëgg fu mu nekk nañ koy wax sa yàlla rek tax kenn jurul kenn nit li ngay am yow rek yaa ko mën a liggéeyal sa bopp. waali ñun ñi ñëpp tey jii kum si doon dimbali. mënulaa téye chaque jour di la wax nii ngay def del def nii del def nii dafa yor famille yor njaboot tal leneen ci avenir am moom kon nit ku si nekk lépp looy wax ci nit seet ko sa bopp ñaata musicien ne ci réew mi mënuñu ko waaye dañ ko war a encourager ñaanal ko yàlla mu gudd fan wér lii muy def yàlla chaque at yàlla yokk ko mu mën ko di def ñun de suñu fierté la suñu sag la suñu titre la sa ñun royukaay lañ ko def ndax man bu ma sañoon li muy def barke Seexul Xadim li jàppe Kër Masaar gi ak képp koo xam ne jullitu yàlla la nekk ci Sénégal chaque at ma woo leen ne leen kaa leen jël ceeb ak diwlin ak lépp yóbbu seeni i njaboot ndax kenn ku ne ku ne rek war ngaa bëgg lu baax sa lii muy def waali joxe joxe maanaam si deretam la ne waali ngay taxaw ne nii waali damaa ñëwoon fi nangam li ci poos mu ñokki ko jox la kon nit ku baax rek lañ ko mën a seedeel loolu rek lañ ko mën a wax ñaanal ko yàlla di wax sénégalais nañ ko encouragé seen doomi réew la seen sagub réew la tey ji yeneen réew yi bu ñu amoon ku mel ni Wally dañ koy fonk téye ko la centre de peuple bii ñu ko tuddee moo ko liggéey li muy dajale dix mille yi ñuy dagg ay ticket ci moom moom lay jëlaat mu di million mu jël ko benn bis jox ko ay doomu aadama kon kay méritoon na la centre de peuple la centre de monde loolu dañ koy ñaanal yàlla yàlla na sax waaw. waaw kàddu gu mujj mooy rek di wax ne fii ñu toog nii su may xarit su doomu ndey ñoo fi ñu bokk ne fi ñuy nit ñu baax a baax a baax a baax nit ñu gëm seen bopp muy Aline Diop coppet xam nga Wuteng xam nga gars bu ma limee damay juum ñi fi nekk bari na ñuy nit ñoo xam ne dara ñorul leen lu dul lu baax doon ay ndaw gëm seen bopp di liggéey di jàppale ay doomu aadama nii ma koy defee ñoom alin Diop ñoom coppet ñoom Wuteng noonu lañ koy defee fii jeunes yi fi daje ñëpp amul ku bon. fii ñi fi nekk ñëpp ni ngay gis nii ñuy daan seen doole noonu la ñuy jëlee xar di ko dimbali ay nit fii ci Kër masaar jot na nag waa Kër masaar bàyyi leen xel jot na autorités Kër masaar yi ñëw ànd ak ñoom xam ne ñoom ñii mën nañoo liggéey dëkk bi mën nañoo liggéey feneen ndax ay ndaw la ñuy dimbali doomu aadama bu buñ gisee tey jii dëkk bi lu fi nekk loo xam ne jafe-jafe la dañ koy saafara comme ni ma koy saafara ñu ànd saafara ko xar yi ngay gis nii dañ koy jël di ci dimbali ay doomaadama am na ñoo xam ne tey jii dañuy ñëw fii joxe benn cinquante mille franc barke Seexul Xadim ñu jox la xar ngay fay ba ki passé ci nit fii am ñoo xam ne dañuy ñëw fii yoruñu cent mille franc ñu lebal la xar nga dem yóbbu julli ci sa kër sa njaboot ba julli gi passé ngay def say trente mille ak cinquante mille kon ñooñu di ko def tey jii nit ñu baax lañ ñu doon toon nit ñu baax duñ ko def ñun ñi tey di def lii di fi toog di jëndi xar di yóbboo ko joxe ak a jaay bëgg suñu gox la rek bëgg suñu waa gox am jàmm kon tey li may wax rek mooy ñi ngi leen di encourager ñoom ñi fi nekk di leen ñaanal yàlla suñuy xarit lañ nit ñu baax lañ nit ñu bëgg dimbali doomu aadama lañ sa ñi ngi dimbali ay doomu aadama waa Kër Massar nañ leen bàyyi xel jàppale leen ku bëgg xarati ba ci waal yi ñu ngi koy tàndal tàllal loxo gars yi dañuy indi fii xar yi na lii lii ngay gis mbaar yi xoola mbaar yi ngay gis yëpp ay xar la woon mais nit ñu baax ñi ñi ngi ñëw it di fi jël di dimbali nit ñu baax ñi kon ñu ngi leen di woo bëgga bëggati xarit na ñëw bu ñëwee gars yi dimbali la boo monee li nga am ak li nga amul boo ñëwee ñu jàppale la ba nga am xar sa yàlla rek tax waaw. Euh, Baye maa ngi lay nuyu. maa lay fay. yaa ci jàmm. maa ngi ci jàmm baax. naka Diourbel. Diourbel nga neex. waaw bi ñëwul. waaw tey tama bi daa ñëwul nag <laughs> waaw. moo tax tey ki nga xamante ni moo di Diop Faramareen gis nga teraanga bi nga xamante ni defal na la ko lan rek yan kàddu rek nga ñuy wax ci moom waa Diop damaa njëkk a ñëw dakaar mu daal di jëndal sama yaay lal bu rafet lal bu ko dugg si biir kër gi ne lii ku leen ko jëndal ma la leen Diop Faramareen moo ma defal lii waaw ma ciy kontaan baax nag di ko ñaanal yàlla na ko yàlla may xéwal gu bari si barke Sëñ Tuubaa Mm. d' accord da nga ñëwoon fii giseeg Diop Faramareen mu daal di lay jëndal li nga xamante ni moo di lal euh, jagleel ko ki nga xamante ni moo di sa waajur bu jigéen euh, tey ñuy waaj li nga xamante ni moo di tabaski ay fan yu néew des si mu daal di lay woo di lay jox li nga xamante ni moo di xar yan kàddu rek nga ñuy wax ci loolu tamit waa da ci kontaan bu baax ah Diop ba ma ba ma yàggee wax loolu daa yàgg barki Sëriñ Tuubaa Diop day toll Dakar di ma yónnee xaalis di ma defal lépp mu koy ñaanal yal na ko yàlla ma xéwal gu bari si barki Sëriñ Tuubaa Diop bëgg ma torop ah di def lépp di toll ba Dakar di ma yónnee xaas barke Serigne Touba di ma woo par minute nag mu ko ñaanal li bëgg yàlla na ko yàlla defal si barke Serigne Touba boo ma njëkkee ñëw dakaar mu ne ma yow de di yàlla nga gisanteeg waale waaye de lal bi nga bëgg dem ndax lal bi nga bëgg am moom nga bëgg a wuti lal bi dinaa ko jëndal jour bi mu wax jour teel indi lal bi ba suñ buntu kër mu mu gaare oto bi dugal lal bi la première fois. nga mel ni ku mel ni ki nga xamante ni moo di Jóob Faramareen def defkatu yu baax yi ñu lay jox li nga xamante ni moo di xar ban yëg-yëg nga ci am. dama cee kontaan bu baax. billaahi dama cee kontaan bu baax. ku mel ni ah jëndal ma xar ak ak ak ak xar ni mu defal ma lépp jëndal sama yaay lal ba nga xamante ne bu rafet kooku mën ma kaa fay dama koy bàyyi ak yàlla. Mm. d'accord lan ngay wax rek ñi nga xamante ni yàlla may na leen li nga xam ne moo di doole ñuy roy ci ñi nga xamante ni moo di jëfkat yu baax yi mel ni Diop Faramaare nag Wally Seck ak ñeneen ñoom ma leen di ñaanal yàlla na leen yàlla may xéewal rek man Wally dama ko yàgg bëgg depuis ba ma sama di jàngal tama ba tey maa ngi topp Wally mm-hmm. waaw mm-hmm. ngi topp Wally depuis ba ngay ba tey waaw d'accord jour bi nga gisee Wally naka naka lan la def ci yow waa dama teral may ma xaalis bu bëri mu kontaan lool léegi tamit si si la ma Jóob gisee si net bi xamanteeg man boobu laa xamanteeg Jóob ma ñëw ñu tase buntu Pikine Jóob boobu la xamanteeg man barki Sëñ Tuubaa di ma defal lépp nag. Mm-hmm. Mm. d'accord xar mi kenn moo ko nar a togg. xar yaay wala dangay yóbbu sax kii bi mu togg sama sama sama jabar ji moo koy togg. Ah, yow da nga am ah, sama naa jabar kay si kër gi. Ah, am nga jabar ci <laughs> mooy soxna si kër gi nu tudd. Fada. waaw. sama jabar ma ak ji la. d'accord d'accord Saliou tey ñëpp ku la xam xam na ni nga mel ak ki nga xamante ni moo di Waly Ballago Seck ki nga xam xam na ki nga xamante moo di Diop Faramareen aussi boo déggee yenn saay kàddu yi nga xamante ni ñu si bari ñu ngi koy yëkkati di ko jëmale ci sa woykat bi nga xamante ni moo di Waly Ballago Seck ay dàll yi nga muy sol dàll borom ñaari tur yi la lan rek lay def si yow en tant que koo xamante ni fans Waly nga bëgg ko lool. man ah, loolu. loolu su ma ko déggee du naqari. ndax Wally génn moom nekkul ci net bi moom day jàppale doomu aadama yi def lépp man maa ngi ko gis ak ak ak ak ay lafañ mu leen di dimbale ay handicapé mu leen di may xaas bu bari bëri barke Sëñ Tuubaa man ñooñ di wax loolu sax man faalewu ma leen sax man Wally rek laay laay topp man moom laay topp. Hmm. boo déggee ñuy yëkkati ay kàddu yu ñaaw di ko teg ci daram lan lay def ci yow. loolu dina mën a xari lool mais du ma si mun tus mais nit. nit boo faaw nga nekk dinga nga am ay noon di nga am ay mm, moom nag yàlla daa dogal sopp yee bëri sopp yi moom ñu ko bëgg moom daa bari macha allah. Mm. d'accord bu amoon message booy lancé jëmale ko ci moom ban message lay doon ngir mu man ci bàyyi xel. man daal maa ngi koy nuyu di ko jox wàccuwaayam di ko wax tabaski bi yàlla na ko fi fekk ba beneen tabaski fekkaat ko fi ci barke Sëñ Tuubaa di ko ñaanal xéwal gu bëri damaa yëg kaw seen mu bëgg ma may ma xaas bu bëri ma ko ma kontaan ci lool. Mm, ma ko ñaanal yal na yàlla guddal fanam. Mm. yaa ngi xaar sa ñëw si biir Ramadan. waaw loolu moom heure su ko yàlla defee rek xam naa moom waale moom soxorut te ñi muy àndal soxorul. Mm. merci beaucoup. waaw yal na yàlla def jàmm. Euh, tey ki ñu taxawal ni tamit muy Binta euh, mag ci ki nga xamante ni moo di Baye Zale euh, Binta gannaaw ba nga ñëwee fi nga xamante ni moo di Ndakaaru Diop Faramareen daal di yëkkati xar jox leen ko leen kàddu rek nga ciy sànni aussi. waaw damay am kontaante bu baax a baax di leen nuyu yéen tamit ñu baax ngeen joobit ku baax la francement bëgg na Baye Zale bëgg nañu ñun ñi di ay rakkam ndaxte ki la jël ne man maay seen mag ginnaaw yàlla kooku amoo fayam benn jour la gisanteeg Baye Zale sama yaay muy jooy sama yaay di jooy Jóob di jooy mu ne Baye Zale loo wut si fii mu ne ko damaa ñëw pour Wally jënd sama yaay lal bi mu ko waxee loolu mu ne ko loolu nga fi wut mu ne ko waaw mu ne ko soo sax de bu la jëndalee lal sax man dinaa la jëndal lal bu la jëndalul lal dinaa la ko jëndal te bu ma la ko jëndalee mel na ni waale moo la ko jëndal te bi mu ko waxee la ko def aussi bi mu ko waxee jour bi mu ko waxee ne moom lay ñëw lal bi jour boobu ko indi indi lal ba teg si xaalis bu bëri ne jëndalee mat laa ne dinaa indi karo yi te bi mu ko waxee nii barke Serigne Saliou da koo def fu mu toll mu ngi dugal dépasse guddeeg bëccëg suñu kër mel ni comme si que ñoo bokk ndey ak baay te sax ñoo ko bokk parce que wane na ko démb si guddi la moo woo ma damay jëndal sama yaay jëndal naa ko xar ñëw leen jël si ko mu ne ko Diop loolu ëpp na di mu ne ma loolu du dara yéen nee naa leen lépp lu ma am te bokk ma ko yéen yàlla bu ma am xam nga kon loolu baax rek moo ko waral ak gore ndaxte mënoon na ne gis naa leen rek benn yoon bi laa leen mën a defal defal naa leen pare naa si mais tey jii fi mu jëlee sama yaay sax xamu ko barki Serigne Saliou Diop mi defal lii sama yaay xamu sax li ko defal Diop woowee ne la jëndal naa la xar jëndal naa sa yaay xar subaa ngeen ñëw jël si ko bi nga ko annoncé sa yaay bi nga ko annoncé sa yaay foofu lan la. waaw boobu dafa kontaan dafa kontaan jóg tëb ma ko yaay lan la mu ne Diop daf ne dafa maa jëndal xar ma ne ko kon yow am xar mu ne ah ko woon fi mu toll nii am naa ko nata sama doom moo ma ko jëndal loolu rek kontaan la aussi mbégte la te jóob dafa baax ñu koy ñaanal yàlla. yàlla taxaw ko toog ba lii muy def si ñun ay doomam fay ko ko ñu ne ñu mun ko koo feyaale waaw. d'accord bi nga gisee xar bi nga xamante ne Diop Faramareen jox na la ko ban yëg-yëg nga am aussi. waaw man moom damaa kontaan franchement parce que li nga war a def bu la ko defaree da ngaa war a kontaan parce que ginnaaw yàlla may taaw mais tamit lii Diop di def man la waroon jigéen laa mais jigéenu góor moom amatul liggéey moom tànk yaa ngi koy def rek amee dimbale say waajur Diop nag lii mu def da man la ko defal de defalu ko sax sama yaay man mii la ko defal parce que déwén man la waroon ren jii man la waroon tey mu def ko nii te maa ko doon xalaat kon li mu def dama see bu baax a baax. noo xar moom mos sa yomb parce que xar bi jënd daaw rek presque ay cent cinquante lañ ko jënde ren jii bii ñuy jëndal nii buñ ko nattablee xaalis la te xaalis a ko génne te defaluñu ko ñun dong day xool néewti doolee ak jaamu yàlla yi mu ko yëkkati di leen ko jox loolu rek la. kàddu gu mujj gi daal mooy di ko ñaanal yàlla sàmm ko bàyyi ko fi ba si kanam kanam mu dem ba màggete suñu wet ñu koy gis chaque jour mu dem ba lim namm si sama yaay ak yaayam yëpp yàlla na ko suñu borom defal moom it njabootam fay ko ko kontaan nañ trop yàlla may ko ay tabaski yu baree bari ba tabaski déwén bu ñëwee ñu jënd ko ñu ne di fay ko ko waaw ok merci. bi maa ngi lay nuyu. waaw maa lay sant bu baax a baax. ci jàmm maa ngi si jàmm bu baax a baax. naka la. tur bi la ñu gën a xam si Wutañ Keleng. non yàgg na def loolu quoi yàgg na def loolu ren sax dañuy fekk xar xaw a yi xaw a jël xar yi dem presque chaque année dinañ yeew lu ma deux cent têtes ngir euh, kër waa Kër Massar ndax tamit soo gisee grand frère bi jàppale ay booyam ñu lañ ko si sant di ko si gërëm Mbodj joob moom amul benn am problème moom si àddunaam quoi ndax chaque bi mooy cinq ans chaque muy ñëw di jënd su dee dara sax dina ñëw ne ah ñi de samay waay lañ xaar ma ñëw jënd seen xar dem ren nag waale mënoon na ñëw mais xam naa ni affaire affaire rek xat-xat yi ak ak ak affaire yi def moo tax mais ñoo ngi koy sant di ko gërëm xam na ne daralam bii daralam la quoi wax dëgg yàlla gestes yi muy def nice na trop nice na Mbodj tamit gestes yi muy def nice na trop Diop vraiment ren rafet na te amul lu ñu koy wax moom dañ koy sant di ko gërëm déwén yàlla def mu amaat yu ëpp yii ndax affaire moom dañuy ñaan yàlla yamul fii quoi affaire yamul si benn quoi. affaire yi ñaar lañ doon commencé ba ñett ba ñeent ba juróom kon tey su ñëwee di jën lu mat ay 15 xar kon dañ ci sant yàlla si moom te xam naa balaa déwén dina gën a yokk mais na ko waali teg loxo nag na ko waali teg loxo ñun am na ay maal façon maal bu mu bëgg am na fi ñun ragaluñ loolu quoi. Mm. waaw ren moom dafa seer ko ren moom wax dëgg yàlla dafa seer di ñaanal tamit euh, Macky Sall mu dimbali ñu tamit si dund bi dund bi métti na trop dañ ko yëg yëg nañ ko trop nag métti na trop xar moom waroon na xar moom waroon na ba jar ay cent mille ba cent cinquante mille mais ren euh, ripaas bi seer na lépp seer mais ku nit ku la di jox la benn xar rek sant ko nit ku la yëkkati jox la benn xar sant ko bu baax a baax nag xar bu si gën a ndaw cent quatre vingt dix bu si gën a ndaw nag xar bu baax xaru yar bu si gën baax cent quatre vingt cent soixante dix Issa Mbaye Dieng kon koo kon ku jëkk di jox doomu aadama rek kon jàmbaar la quoi ma loolu laa gën a gis quoi waaw merci ñoo ko bokk yow nuyul ma ñëpp yow. waaw ñoo lay fay ñoo lay fay bu baax Ndiouga Seck waaw Diop moom dañ koy ñaanal yàlla rek suñu waay la quoi ku baax la di ko ñaanal yàlla moo xam li mu bëgg yàlla na yàlla defal ko yàggul dara rek am na benn booy boo xam ni moo ngi fii ci kanam da doon def da doon dem Touba def soog mu def dem fa defal ko social bu rëy jox ko lu bari génne si alalam lu bari jox ko xam nga loolu nit bu koy def rek moo ngi bàyyi nit ñi xel quoi xëy na nag du si moom quoi. xëy na si ki mu topp la parce que nit moom bu toppee ci nit ci waali mi topp la parce que loolu boo demee ba koy ba koy def si waali moom la ko gisee parce que nit booy ànd ak moom muy def dara si social yow mënoo lu dul di ko jàppale te li nga koy jàppalee mooy gox ba nga nekk li ngay génnee li nga yor sa poos di ko defal waa gox ba ñu xam ni sa waa ji moo tax ngay def loolu loolu jàppale waal rek la mu nekk ku séré jën na fi xar sax yóbbul ko jën na fi xar sax yóbbul ko jën yóbbu yóbbul ko waaje mu nekk ku baax a baax baax ñu koy ñaanal yàlla yàlla na yàlla taxawu ko fii nag fii dañ fee nekk yaa ngi dégg nekk ay jeunes yor ay xar quoi xar yi ëppoon na nii xar yi ëppoon na nii li dem presque mën na ay cent wala ay cent et quelques têtes quoi waaw di ko sante yàlla nag parce que fii mooy Kër Massar waaye bu fekkoon mafia bi tey ñëpp nga fiy fekk ay ñoom faram tuwa gaay démb rek ñoo toog fii lañ àndandoo chaque dimanche fii lañ ba yëmbal ñun ñëpp benn lañ waaw Kër masaar moom xam naa ne suñu Kër Masar la dunuñu Kër Masar <laughs> duñ fi dara waaye xam naa ne bu ñu si génne woon dara du fi des quoi waaw. waaw Diop dañ koy encouragé rek di ko lancé ni ko fii nga teg sa tàng fii la parce que àdduna nit li mu lekk yaa ngi dégg loolu du ko jëriñ nit li mu jël jëndee ko yére sol ko loolu jëriñu ko nit xam nga la moo koy jëriñ li ngay jël de ko def si jaamu yàlla yi loolu moo lay jëriñ yow mal xiyaam su fekkee la sa biir bàmmeel yow mal xiyaam loolu moo lay ram loolu nga am si sa alal nit alalam loolu rek la ci am parce que lekk ak naan yàlla moo koy gérer nit. mais nit ku yor alalam yaa ngi dégg xoolu ci dara lu dul ni jàmm bi soxla na ko xaaral ma dem jox ko kooku yawmal am yàlla da koy fay kooku day am fay quoi alalam di di mu yor lépp loolu rek moo ko ciy jëriñ di ko encouragé fi mu teg tàngam nango ni nga fi nga fi nga teg sa tàng foofu la bu ko teggee waaw mu nekk jeune nag nekk ku bëgg nekk ku bëgg jàppale nit quoi chaque jour ñooy toogandoo fii chaque jour ñooy toogandoo fii heure bu ñu amee temps bu liggéey amul ñooy nekkandoo fii mu nekk grand bu modeste nekk ku bëgg Wally nag li muy wax nag lu mu gëm la nekkul lu mu tricher quoi waaw. waaw de rien ñoo far yal na yàlla defal leen jàmm ku bëgg daral bi bi ba xar yaa ngi nii rek xar bi ku bëgg a ñëw rek ñëwal xar ñun xam na ni moom suñ dara gaar yi ñëw fii sax naa ñun da nga wanteer non xar boo gisee xar ñu la koy jaay ay cent quatre-vingt mille ay cent soixante-dix xam nga ni ñoo ngi ci def xéwal barki démb ànd naag sama benn copain dem daral bi muy mbotay lay waxaale ñu ne ko cent cent cinq mille loolu xam nga ton xar yi ñoo ngi ciy def xéwal ko waaw di ñaan waaw yàlla yàlla taxaw ñun ñëpp seen télé bi yal na yàlla jëmale ko kanam yàlla nañ ko dégg fi ñuy dégg télé yëpp ci barkinte bi salaay salaam di leen bëgg bu baax nag sama waa yi ngeen takkaloo ko nag ku baax na waale waaw maa waaw waale Diop mii ku baax la mu bëgg nga teg ko loxo boo ko tegee loxo waa Kër Massar yëpp xam ni teg nga ko loxo waaw parce que Kër Massar ñoo ngi ci ginnaaw ba ñàkkorob ci ginnaaw ñëpp baax la te kàppoo la waaw xam nga nit du wax sa mbaaxu waaye du wàññi sa mbaax dara yaa ngi dégg nit bu amee ay millions yaa ngi dégg ngay wax ci moom wala nga koy iñaane da ngay waaw nit ku nekk ku nekk li nga nekk yàlla nga si avancé ñun ñëpp ñu jëm kanam kàppoo yaa ngi nii ay ñoom coo ñoom Alioune Diop de dégg nga gaayab dañuy ñëw waaw mbo di la ñaanal bu baax nag di la ñaan yéen tamit